sigil te weytoo madru yi tuub nan ci yow bu te bul faale ka wuy see ka farjekki Moustapha su fekkoon da ngay laaj carte say candidat wiiw na yaawat ña daawoote ña daawaate Moustapha Cheikh santal dayab cant yaa fi gën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 saykandi ɗaani wiiw nde yawat nya Dawate mustawa ñi ngay woo ne nañu waawaaw nde cheikh bamba yaay donoom ku koy sikki sakaareere cheikh abdi mustawa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki julidi yi mbokki taalibe yi ginnaaw bañ di len ziaré ah, tay ji nak ñoo ngi ci pak bu tedd bi diaru Khoudous keur Serigne abdourahman Mbacke and fek section bi nga xamne ne section Dakar ak section Thiès ñu ñewon fi ci kanamu Serigne bi ah, nin ko baxo daan defé an mu jat ci magaluk daru Khoudous gi di magaluk Serigne Bamba gi ah, ittihadu ba at khadim li taxawu ni tamit sukk bi dinal khawim ñom ñep tew ci kanamu mbolom mi mu takku mu bari mi ñew fi ci kanamu Cheikh abdourahman Mbacke mi nga xamne ne. moo fi nekkal sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma moom lañ fekk si fii di indi seenub siyaare di yeesal seenub siyaare ak seenu ngébal ah, section nag buñ ko waxee mooy section Dakar di benn bànqaas si biir fédération bi ànd ak Thiès ah, ñoom it bi ñëwee tey jii ah, seen kàddu gu njëkk jox na sëriñ Mamour Diop mu indi ay kàddoom. def ab leeral akub soññee bi noppee Serigne Moussa Ndiaye moom it jël na fi kàddu def ay leeral ak i soññee ci li nga xam ne liggéey bi ni ko sëriñ bi taxawee la woon te lenn sababu ko lu dul liggéey bi nga xam ne moo gën a gàtt gën a gaaw àggale am mbooloo mu jëm si yàlla. Ah, bu noppee nag it ñu jël kàddu gi jox ko ki nga xam ne mooy kaddu sëriñ bi muy kaddu sëriñ Abdourahmane moom it mu soññewaat leen daggiwaat leen ah, ñaanalaat leen. habli walil lazina qata'allaqu إياك نعبد ونستعين فإنك نعبد ونستعين دللتنا بك عليك يا رخيب يا يا ذا الصراط المستقيم هب لنا من يا ذا الصراط المستقيم هب لنا هدى به من هب السلام عليكم wa rahmatullahi wa noo ngi lay jottali nuyu mbooloo mi toog fi sa kanam di sa njabootuk bopp nuy tàmbalee jooxe nuyooyu mbooloo mi ci turu kilifa yi nu àndal muy Alaaji Baay Jeng Jóob nu xam bu baax ni xamoon nga ay doxinam ak i taxawaayam lu jëkk sa toogaay bii nu nit nu gimmee ci gis muy dox doxin yu am solo te bis bu ne ak xew-xew bu ne lu ci yegg si itam mu ànd caag nun àndiin wu mel ni day door a tàmbali loolu lépp nag am lu muy wut te mu wóor ko ni li muy wut am na fi mu koy wute mu rafetal wutiin lool ak sëriñ Ilimaan Juuf mi nga xam ni moom it xam nanu bu baax ni xamoon nga ay taxawaayam lu jiitu sa jataay bi mu di ko taxawee fii ci biir réew mi di ko taxawee ci biti mu bokk itam ci ñi nga xam ni gimmee nañu ci ay loxoom mook àndandoom ba wéttalam wa seen jàmbaar ja alaaj sëriñ Ndoye bi sëriñ bi doora taxawal liggéey bii ci seeni loxo lañu sëriñ bi tegan teg sëñ Moustapha sa doom ci seen kanam nu ànd ko kon ak sunu wayjuru jigen yi di ay ñay xare yo xamni lepp lu yegg lu mëna doon ci jëf ak taxaway bu ci seen loxo tabbiwul soxé dana ci am waye lepp nak ñu ko defe ci ndigalu wayjuru yu goor yi nga xamni biñu leen di jël ci loolu lañu nekkon biñ leen di jëleet ci loolu rek lañ leen xiirtal ba yàlla dogal nu doone ak njaboot ca biir loola kon ci turu kuréel yooyu di ñaari waajur yi ak seen njabooti bopp yi di nun sëñ bi noo lay siyaar bu baax te di la nuyu ci bis bu tedd bii sëriñ bi noo ngi jaarale ci yow am nuyoo bu jëm ci sa bokk yi nga bokkal bis bu tedd bi nu dëgmal te jiital ca sa wajuru bop serigne ahmadul mukhtar ak jawrinam sa magi bop serigne Cheikh mbake Madina waye ak mboolem sa rakk yi nek ci sa pegg yep di la ci jotaay yi ak taxaway yi ta rafetal ko lol ta mu nek ci sen kanam serigne mbake gaynde Fatma mi nek ci bop liggéeyu federation bi waaye noo ngi jàllale nuyoo bi ci sa mboolem doomi bopp yi nga xam ni ñépp ñu ngi ci sa ron kilifteef di jéem ak rafetal seeni taxawaay ci wetu sa rakk yi di seeni baay ci luñ mënta taxawe ñu jéem leen caa wuutu te ñoom ñëpp mu nekk ci seen kanam seen taawu bopp sëriñ Moustapha Mohamed sëriñ bi noo ngi nuyoo bu baax a baax tey siyaar boo xam ni am nañ yére mu matale lool mu mel ni bokk yu jigéen yi ma tudd léegi soxna Mbóoj Loo moo nekk ci seen kanam dafa mel ni dafa xaw a yéex a jóg tuuti waaye woote na ni mi ngi ci yoon wi nu jot lilaale ko ab siyaaram nangul ko itam ak teewam fu taxawaayu jigéen ñi yegg rek pëstéefam ak nekk ci seen kanam te di leen ci woo di leen ci xiirtal moo ko moo leen fa yóbbu mu mel ni du nu guddal waaye ginnaaw nu yooyu ak siyaar yi li nu gën a yitteel ci wax ji mooy ñaanal la sun borom tabaraka wa taala dolli laa sàmm te dolli la jàppale te dolli la dimbal dama gis serigne Murtada nangu won di kalak yow nangu nga diko ko te mom da da bañ lolu ndax nee day buntu bu ubbi ko la bu bu ubbi ko ku ci bokul dana ci potoxlu ku ku ku bàyyi won xel yu bari la waye muniko ko yow dal gis na mu nangul lako dila dila dila seto nga diko loolu nag ak sell rek lay wone ñu lay ziar bu baax di ñaan suñu borom dool li taxawaay yu baax a baax sëriñ bi noonu lay feddali suñuy ñaan ci yow suñu borom dool li laa sàmm te jàppale la te fay la bor bu rëy bu yaatu bu rafet bu pës seefu bi nga lebal képp ku la féete kilifteef ci sëñ Tuubaa nu ndey seede nanu ci sa pëstéef ak sa taalube donte tuuti nañ ci waaye nu wax rek li nu xam wax nga ni koo xam ni daf laa féete kilifteef ci sëñ Touba loo ko mag-mag rek da koy jox cër ba loolu di doxin wu rafet woo xam ni bu ci yëpp maase woon rek lu bari du xew wax ma ni te mooy bi nga may yabal may dem penku ngir mott li li sëriñ Abdul Fataa faratay xajam ni ma loo ma gis ma di ko def rek sëñ Cheikh laa ci am pas-pasu liggéeyal ko sëñ bi ci pas boobu lan la fekk si moo tax nu toog fii sama am ja Cheikh Mamadou Moustapha waxoon na ni lépp lu waay defal sëñ Touba ba seex ba nga koy def maag yow ko ànd ma ëppalee la jureel gi daldi nan dem ca néeg ya néeg bu ko waay takkal takkal naa ko bu ko gën a rafet nan dem ca curi ba fas wu ko waay jox jox naa ko wu ko gën a rafet nan dem ca sàq ya sàq mu ko waay jox jox naa ko mu ko ëpp nan dem ca kaamil ya kenn gënumaa rafet mbind kenn ëppalewuma loo bind te maa ko jëkk jox junni te kaamil bu ne ànd naag fukki junni ñaar nun nag mel na ni ni jamonoy doxee ñi ëpp ci nun mbaa nun ñëpp yëratunu ay fas sëñ bi takkalootul ay néeg ay bindkat bariwul ci nun waaye alhamdulilahi rabil alamin yooyee mag ñi doon def di ca jële loolee ñu doon wut tamu ne ca ta mat ko sëkk sëriñ Cheikh booleel nu ko ci ànd bi loolu rek lañ ci wut yooyee mu Moustapha diiran sëriñ Cheikh xamoon ëllëg tax tuyaaba yooyu ñu doon wut ci yooyu ma tudd lépp mu dajaleel nu ko ci àndub daayira bi sëriñ bi and bi duñ ko baye mukk jàpp nañ ko te nee ko katiw katiw lañ ko def te duñ ko baye mukk nu bëgg nga ñaanal nu sun borom dolli noo dimbali ba nu ci ak ñepp rek ci and señ bi ñaanal nu nu and ak suñu bokk am nu ay bokki deret am nu ay bokki dekkando am ay bokki pas-pas ndax pas-pas bi mom serigne bi ka serigne bi ñaanal nu ci dara jey bis bi nu and ak sunuy bokk ndax leneen lu nu gar lu dul loolu balano mana jam jam bëggug bi day fekk nu mana and ba nopi budul lolu ci dir rek la duy dekk dir di dir rek waye jam du yomb te jàmm rek lañ bëgg ndax rab wi bu nu ko jamee ba yóbbu ko dana am dund ba doy sëkk ci fii ak ci feneen kon dimbali nu ban mën a jam rab wi bal bi koy jam nag mooy ànd kon dimbali nu ñaanal nu nu ànd ànd rek lañ bëgg leneen lu mën a doon lu dul lool rek lu gaar la waaye du sunu yitte mbolo ma ngi ni di yeesal seen pestef and bi nak yobbu nañu ci nu nangu ñi ne ci biir and bi yëpp di sax njaboot ndax señ tuba rek tax waaye man nañ cee tan ay benn benn yoo xam ni danaa koy wax ñu ngay siar kër sëriñ Abdul Ahad ba nupi di fa ay jàmbaar danaa koy wax lu bari di tudd diw ni jëwrin la ci serigne Modou Mbacke mum serigne abdullah hak ta jambar la lol ci liguey bi yor na ci sax ab responsabilité waye ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ci ay buntu kër ngir dano bokk diir rek fi serigne cheikh joxo joxoñan ta nanu and ngir jariñante waaye ànduloo wunu won ngir jariñonu ta alhamdulilahi rabbil alamin yak sabak yu baxé ya ba ci sa jotaay bi lépp lu nu mas a yëngu boobaak léegi ku mën na doon ci noonu ba ci alaaj baay jéeg mi ma tudd léegi li muy doon doon jàmbaar lu nu mas yëngu lu ne yaa ca yaa ko ca man bu dee lu ñuy joxe yaa ko ca man kon nag néggandiku ak xaar ak bàyyi xel lu bàyyi ko ci nun jëm si ci yow déedéet loolu taxul nga di dul safar wax nga ma bis ni ma wax nga ma bis ni ma luma mën ta ñak rek am ko luma mën ta ñak rek am ko yal na yàgg ya te doon sa njiglay kon lila yitel ci mbolo mi rek moy doxin wu rafet ak and and bi nak mi ngi bëgg yag lool bu nu joggé nok suñu bokki noy and bu nuy waaj lanuy jotante ñu waaj bu nuy départ fekk nan ñu jatu ba taxaw ñu ngi nii toog dana jox sëñ Moussa Ndiaye kàddu waaye àndin wu rafet la woo xam ni bu ma ko tuddul woon duñ mën a xam ni waa Cees ngi fi bu nu jógee ndakaaru buntu kër sa wajuroo soxna bintu fa lañ leen di fekk nu ànd yegg si njaareem taxaw kër sëriñ Mbàkke Juuf ca bàyyi tedd sëñ mi mbooloo mii xawuñoo neex neexa añal ci ku ko waajul walla ku ñu dul yot dara waaye boobaak léegi saa bu ñu yegsee bàyyi tedd toggal mbooloo mi añ saa bu ñu yegsee rek bàyyi tedd toggal mbooloo mi añ ci poosu boppam te dara waralu ko lu dul nu bokk ak moom rek fu nu jëm si noo ngi la koy seedeel bu baax bëgg nga dolli lu ko ñaan suñu borom dolli koo dimbali te jàppale ko te dimbali nu te jàppale nu sëriñ bi nun yaari jekku lan bëgg a jekku yaari jekku mooy jekku jekku njël yaari jekku lan bëgg bëgg na noo jekku ndigal jekku njël ndax amunu yitte ju ëpp loolu ndax ndigal li moom lu yaatu la loo xam ni lanu yëngu ca kër ya di ko yëngu ci bokk yi lépp ci ndigalu Sëñ Tuubaa kon jekku ndigal lu yaatu la moom jekku njël itam mooy dëkkuwaay yi ak waruwaay yi ak nekkuwaay yi lépp xaj na ci bis bii nu dëgmal xaj na ci sa jataay bii xaj na ci pakk bii te it gëm nañ ko lool Baye Tedd Juuf bu la xamul lool am na tuuti lu mu xam ci kaw ci yow waxan na ma bis ñi ma wax leen sëriñ bi ni ko bu bëggee xat-xat yi jeex dina jeex sëriñ bi bëggal xat-xat yi jeex bëgg ko Baye Tedd nee na boo bëggee xat-xat yi jeex dana jeex bëgg ko ndax nun kat bëgg na nu nga bëgg ko wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh serigne abdourahman Mbacké ñi ngi lay nuyu bu baax a baax ci turu mbolo mi nga xamni mom lañu andal muy section de Thiès ci njital serigne Cheikh sar bi nga xamni mom la yalla dogal mu nek président d'honneur bi euh mu melni dañuy doylo rek kaddu yi nga xamni moom la sëñ Modou Mamoun yëkkati sànq ci sa kanam ndax euh, olof dafa wax ni nit du weddi boppam ndax mënuñoo wax ni mbooloo mi menn mbooloo la wenn tur la wenn carte de membre la benn règlement intérieur la benn sati la ñu wax ni bu ñu toogee munoo fee xàmmee waa Thiès ak waa Ndakaaru waa Ndakaaru wax ba pare waa Thiès ji am na ciy teg waaye nag mu am ay seede yu gàtt rek yoo xam ne ñi ngi lay ñaan nga maynu ñu seede ko ndax eh, dañoo ànd ak ay jàmbaari lislaam ay ñayi xare di jàmbaar ci liggéey bi ñu ne bu ci tuddee jëmb ji toog sewet muy bàyyi muuru njaay murit mu doy sëkk mën naa wax ne bul woon waaw Faat Njaay wilaaya mën naa wax ni bu dul moo eh, bu dul woon mooma li ñuy wax eh, structure bi ñuy wax adulte dootul am Thiès waaye moo xare ba mbooloo moomu dekkiwaat biir cees moom Baye Mourou Diagne mi ngi nii ñu ngi koy sant baax di ko gërëm dina la ko seddeel waaye dina la seede itam ne mbooloo mii kat Mbàkke mag ñi jeex nañu ndax moom képp a ci des yàlla na fi yàgg loolu te wér ay gone doo nga fi ne ñi nga gis ñëpp kenn amagu ci fanweeri at ak juróom kon ay gone lañu day jàmbaar yoo xam ne nag fu waa Thiès joxoñ danañu fexe ba àgg fa di ñaan nga defal leen ñaanu xaas goo xam ne bu ëllëgee bu ñuy ñëw fii kenn ku ne lu lu waaye nar a def kenn taxaw mën koo def ci barke Cheikhul Khadim di la ñaanal nga yàgg fi loolu te wér euh, damay faral di wax ni yow sunu sag nga sunu tiitar nga bu Serigne Cheikh dellu siwaatoon jamono doo soppi aw doxin doo soppi ab jotaay Serigne Modou ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm waaye itam di la seedeel euh, kàddu yi cant ak ngërëm bàyyi ko ci section bi waaye jëmaat ci soxna Xadi Ndir bis bi ñu tobbee aw sas wax ne lii mooy sasu section bi lii mooy sasu secrétariat bi ca saasa la ko daal di matal moog ñu mu àndal kaddu yi jartu guddal ngi sant ñëpp ñi ngi gërëm ñëpp asalaamualeykum mbooloo mi dafa lu ma dab ci jataay bi bi ma fi yegsee te mu bokk ci li ma xam ne dinaa ko joxe. fii ci barab bii sëriñ Mourtada moo ma yónni si ci sëriñ Cheikh te daf ma wax na rek boo demee nuyu ko nekk ko ñoo la yónni ma ñëw fi keroog ci bu mu génnee ci saal bi ñamu fettasu ne naa sukk ci ndab loolu ci laa sukk ba ñu noppee ñu jëlale ci beneen ñeneen sukk ci waaye ba ma yeewi ak fetal la ma jox ma gàdd ko dem yóbbul ko Cheikh Mouhamadul Mourtada mu demonte ko def lépp defaat ko nam meloon ci bisu màggal gii nu dëgmal nii pour walla na kii sëriñ Cheikh la mu woolu ma moom genn guddi ma ñëw wuy si ko këram te fekkewul jataay boobu wallahi mu yëkkati fetal gu mel ni googa ne mu yëtal ma ko sëriñ Mourtada ma gaddu fetal gi def ko ci sama auto bi ma ne teul ci biir kër gi gémi yi nan nga yor fetal di ñew ci biir kër gi ben adjudant ne leen kii moo nekk ak serigne bi ma yegg si sëñ bi ne ma lu doon ma ne ko serigne abdourahman moma yoni mu ne ma lu la jox ma ne ko ak fetal mu ne may len ma démonté ko nam defon gogo bam yegg monté wat ko bég ci ci guddi bi ne bo boo nek non koy ñaanal ku ko xel la kon suma togaté ci jotaay gi ma serigne Cheikh joxone fetal gi mu dikkat fekk ko mu tok daf ma indi wat me benen bir waye ma len di wax ne serigne bi kilifa gu nango nangu ñu yilif ko momay wax lo ab murit saadix momay wax lo ku gem Cheikhul Khadim momay wax lo ku sagal serigne Modou mustapha la waaye nag sëriñ seex la moom jërul ma ci sori ndox nun ñëpp noo ko xamandoo kilifaam yi fi nekkoon it liggéeyal la leen liggéey bu rëy te mën naa koo sedde ma ànd moom ci benn barab ñu di ko siyaare kilifaam yebal ko ba mu noppee dajale addi yi ne mi ngi nii dajale nuyoo yi mi ngi nii ne lii moom lañ ko nuyoo ndax mooma yónni lii addile yi moo ko moom fab ko indi maa moom a toog mu def ko ba mu yegg ma xam ne kii maanaam am kilifa ko daqal doon kilifa noonu la ko defe ci sëriñ Murtada ak njabootu sëñ Tuubaa ma xam yépp kon su ma nee tontul ma mbooloo mi du leen tontu ci lu dul taalibe lii mu leen jiite mu di ak taalibe yëg seegu leen ci kawam te bu doon ab tëli da seen mu sori lool te du ngeen si ci moom lu ngeen koy defar rek defal na ko kilifaam lu ngeen koy wax rek wax na lu ko raw kilifaam dañu ko jëw ba bàyyi ko ndax yoon yi ngay dégg yëpp muy dem Italie ak Amérique sëñ daal dafa waxoon ak moom rek moo tax nangootu koo tardé ba léegi sëñ Mamadou da ko wax ne ko waaye nag sëñu ma laa te toogal ndax kamanoon jógal moo la noon fekk ma fa nan fa daje boo fa amoon bis sax doy na te kat nit boo àndeek moom taw doxinam rafet bul jàdd model la jërul wut beneen ku ko topp daañu la naw ci doxinu taalibe mënuñu ko cee dab loolu yaakaar naa ni waxuma lu ngir lu ko neex damay wax li ma gis ndax man yoon wii duutuma ci wax nit lu ko neex ndax ku ma ci niwul sa maam ne rek ne la sa baay neene ma te ci taalu bi rek lay dund te lima gis ci mom moy nañ ko deglu wax ji du bari nañ ko deglu doxin wi rafetna ko deglu ku bagi bokkam la nañ ko deglu ku joxe kiliftef la yoy nak nañ ko ci roy te buñ ko booleeg dara te xamne Serigne Cheikh rek la fi nekkal nekkalu fi ku dul Serigne Cheikh waye lu way am ci mom dana la ko jox yentem andale nak mom te lu way am ci mom ngeen jox ko alaykum yalax nañu seen xam-xam ya far toppi mustawa sigil te weytoo madru yi tuub nan ci bu wér te bul faale ko wuy seek ka far jekki mustawa su fekkoon da ngay laaj carte say candidat ni wiiw na yaawat ña daawoote ña daawaate mustawa ñu ngi di ziar ñëpp barke sëñ Mbacke soxna Lo barke sëñ Cheikh Mbacke. maa ngi tudd Cheikhul xalim Diop ñu naan ma Khadim Diop. wilaya ma bokk wilaya Dakar bokk daayira Taïf Saxir bokk section Dakar. naka nga waajalee bis bi papa. bis bi maanaam ba ñu naan booba tabaski jibagul ba tey ji ba suba ñu di ko waaj jëm ca bis ba sa dab maanaam gisuñu lenn lu dul xam ne maanaam lu dul sëñ Cheikh amuñu si lenn loo xam ne tegoon nañ ko si bis bi daf ñoo jaral ru bu ñu dikkutoon it dañuy def ni nga xam ne noonu la ko Cheikh Moustapha bëggee nam ko digle woon waxe ko ni moom lañ ko fas yéene woon a doxe daaw waxtu wi daaw ba mu ñu fekkee ñu tëdd hôpital. waaw dañoo wax ñu teg ñu si puus puus ñu puus ñu jëmali ñu penku ngir ñëw mën a egsi si màggal gi jëmmoo si kon tey jii bu ñu taxawee fii sëñ Abdourahmane taxaw fii di wax seedeel li ñu seedeel waxal ñu ko amuñu si lu dul mbégte. maanaam yéen ñi di gone ñun dañ leen di gën a soññ si taxawaay bi liggéey bi maanaam bëgguñu si lu dul ndam ndam li nag kenn yoru ku dul yéen ñi amul kenn ku dul sëñ liggéey bi yëpp si sëñ Cheikh rek lañ ko gis maanaam loolu rek moom mooy si liggéey bi commission sociale bi nga xam ne si la ñu bokkit am na wareef yoo xam ne yu bare ñu siy def rafetlu wuñu lenn lu dul liggéey bi nga xam ne moom ngeen taxawoo di ko liggéey. niñ koy wajale moy commission bu nek commission organisation commission sociale commission communication kenn ku nek da ngay présenter budget bu ñu présenter budget bi ci lañuy évaluer xol bëgg-bëgg gi ak man-man gi ci la doon répartition sas li ñuy wax sous section wilaya femme sas sous section wilaya jeune ak section adulte ci loolu bi ñu leen sasee nag ci lañ koy dajalé buñ ko dajalé nak di commencer exécuter tâche jërëjëf ci leeral yu am solo yooyu ndax leeral nga lu bari ci waajtaay bi waaye dañoo bëggoon a xam rek bi ngeen ñëwee ci sëriñ bi jàkkaarloog moom mu yëkkati ay kàddu soññeem ban yëg-yëg ngeen ci am. waaw sunu xel dafa gën a dalati rek di ñu fàttaliwu ay jotaay ci ginnaaw yàgg-yàgg yoo xam ni nga ko doon amal ak magam ju baax ji sëriñ Mouhamed Mbacke Taïf gannaaw gi sëñ Abdou Fatah mu taxawaat mu ne kàddu soññe la ñuy soññe te sëñ Abdou Rahman dafa nekk jëmm joo xam ne dañoo nekk moom Dakar yàgg a jaxasoog moom mu yàgg di soñ ci ak taalibe bi kon bu ñëwaatee toogaat jotaay a sant yàlla xamaan ne sasaat nañu yi nga xam ne ñoom lañu suñu waajur joxoon ñu fekk leen ci tollu Serigne Cheikh ñu boole ñu tool ci toolu Serigne Cheikh ñu jur fi ay njaboot ànd ak ñoom ñoo ngi ni taxaw suñu njaboot a ak ni sol ay wilaaya ànd ak ñun yéeg-yéeg gi moom mooy benn biñ ci mas di am rek mooy saa yu weeru tam xarit teroo rek suñu xol day sedd ndax bis bi nu di ko waajal nag ak nun ko mën a waajal ba bis bi yëg bis bi nag bu yëgsee liñ ci gën a ñor mooy lii sunu tëni ak sunu àllarba ak ànd ñëw gis doomi Serigne Cheikh ànd bi du tey yàgg na lool su ma xoolee sama ginnaaw fanweeri at ak juróom ci ginnaaw sun ma sànni ñëw léegi bi ñu tolloo Cees rek sama xel dem ma koy wax ak Adja Diass ma ne ko sunu fii deetul am bu ma sànni jógee dakaar bu nu ñëwee rompee Cees fala nu fekk waa Cees ñu taxaw macha allah waa Joal ñëw waa Mbour ñëw lépp lu jóge ci département boobu ñëw sunu oto yi nañ ëpp téeméeri oto ak nangam kon ànd bi doom du tey li ñuy ñaan nag mooy gudd fan lool yàlla bàyyi ñu fi ñu ànd ak ba ca kanam. te yàlla may leen la ñu amoon ndax nii ngay def suñu xol sedd na ndax àddina ku jóg def fii nga jëm si nii sa moroom nga jëm feneen keneen jëm feneen kon macha allah laaw la cat bi ñu jëmee fii sunu njaboot jëm fi noo ngi leen di ñaanal yàlla na ngeen ña daa xaatima ña daa luxus yalax nañu seen xam-xam ya far toppi mustawa sigil te weytoo madru yi tuub nan ci yow bu wér te bul faale demee si dañuy teewlu foofu bu noppee buñ xëyee suba incha allahu rabbi dañuy ñëw nag ànd ak mbooloo mi nga xam ne dañuy ñëw si biir euh, liggéey bi mooy baas bi nga xam ne mooy baasu wilaya bi ñu ànd ak guddi gi fanaan jàng xasida def askar salaatu ala nabi Ah, buñ ko defee ñaanalante ba déwén ak jàmm ah, naka noonu it section yëpp noonu rek lañ koy defee kon xam naa ne rek dañuy taxalu foofu sunu kàddu wasalaamaaleykum wa rahmatullah ku ñëw rek ku jëkki jooy ndeyaar wolof nee na woote yàlla moo gën bu nit di def defoo kenn deful yàllaay borom kun fa Moustapha wolof nee na ko am xel nangu dem téléphone nelaw sigil te weytoo madru yi tuub nan ci bu wér te bul faale ka wuy see ka farjekki Moustapha su fekkoon da ngay laaj carte say candidat wiiw na yaawat ña daawoote ña daawaate Moustapha